une heure de temps di wax ak askan wi ni yow fi def nga yow nga da ngay comment ngay ñii li trois def da ngay am courage toog ñu da nga koy càmbar trois mois doy na waat de moo tax Amadou Ba nee nañ leen may temps de grâce maanaam wax wax maanaam wax rek dëgg boo xam ne tout le temps doo yow doo proposer mukk solution ce mhm. temps yëpp da nga koy proposer passé ci wax ko rek ñu xoolal ñu gëm ko ñoom mhm. nekk ci liggéey Samsung fan la nekk Corée mhm. pourtant Samsung ki ko créé bokk na tey ñi impulsé tey développement Corée du Sud. Samsung euh, tey mu ngi ci huit villes yoo xam ne Samsung ca Corée plus de trente mille yoo xam ne ñu ngi fay liggéeyee mais ci lan lañ ko teg. ci liggéey. en deux en mille neuf cent quatre-vingt-quatorze bu ñu njëkk am dañ koo jënd France. 94. TGV bi ñu njëkk am France lañ ko lañ ko jëndee. 15 ans après ñu defar seen TGV. liggéeyal seen bopp. seen TGV bopp di jaay TGV ñun puso dañ koy jéggaan. Ah mhm. Ousseur sax baax na Kër la mais <laughs> est que est que yéen a ngi imaginer li ma nii. 15 après ñoom ñu defar seen seen seen TGV. waa waa Corée Kër wax bant la lépp lépp dañ koy jéggaani. te ñu am bant fii am na garab gu bari. te pourtant ay nit dafa nekk. Mm-hmm. yu am tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. comme ñun. comme ñun. <laughs> inna allah nag laa yughayyiru ma bi xawmin te dañuy wax ci kii physique sax ñun ñoo leen gën a am ah, ah, ah, kon kàttan physique kon ñoom kon ñoom dañoo ëpp xel dañu doxal seen xel merci beaucoup merci beaucoup Pape am na solo ci cri de cœur bi nga xam ne def nga ko hmm. euh, am na ko ma message léegi nee na ma réew moo xam te ne dañuy waxtaane ci saak ak pantalon rek euh, te te te dama ne dama ni dama ni ñàkk galanterie sax moo tax góor di toog di discuter ci saagu jigéen ndax jigéen boo bëgg sa ak moom war nga koo jëndal saagu 7 millions mu di ko yor <laughs> imaam acca lan moo la gën a marqué ci actualité bi bon man de gars yi yóbbaale nañ ma de suñ <laughs> li nga xam ne ñu ngi bàyyi moo di émission bi ñun ak yéen la continuer leen di wéy di joxe seen ay idée seen suggestion boo leen amee it ak question boo ko euh, fii ñu ko euh, Ousseynou Mbaye depuis États-Unis ñu ngi leen ak internet yi nga xam ne ci kanam tuuti dinaa leen jàllale mais continuer leen di aimé di liker di partager waaye aussi bës leen seen cloche de notification ndax lu doy waar mu ngi waaj ñëw euh, jëmale ko ci màggal sëñ Touba Xaadim Rasoul falaa bëggoon tëjee sax muy euh, jaale xew-xew bi am Tiwaawan mm-hmm. euh, ci lakk gi am bu metti ci daara ja macha allah waaw waaw vraiment ba ñetti xale jot cee faatu ci lakk gu metti mm-hmm. le procureur sax instruire na benn enquête buñ ci tijji pour xool lan moo waral jëf joojee mais metti na torop ci dëkk boobee nekk foofu ca Tiwaawan waa ci benn daara boo xam xamante ne euh, am na fa ay xale yu ndaw ndeysaan mu nekk nag ab naqar ab tiis bu ñu jël accident yi amaat na ci sànq rek euh, ba mu amaat ñetti euh, mort aussi ñu ngi ñaan aussi si yéen ñi nga xam ne yéen ay borom xam-xam. bu situation yi tollee fii ngeen di génne ay ñaan. waaw moom laa doon junj merci merci mm-hmm. Zeyna imaam dugg ci ñu door a dugg ci tamit. merci Zeyna mm-hmm. ñu baal ma rek. Mm-hmm. lakk gu métti la ba ñetti nit génn ci àdduna. kër Malamine bon beneen bi ci des am na ñoo xamante ni ñu ngi dans le mhm. bi mu xewee nag yàlla dogal na xam naa autorités yi jël nañ ci seen matuwaay. Mhm. teew nañ fa waaye. Mhm. ci modab def nañ une forte délégation. wax ak ña nga xamante ni ñoo nekk ci doomu daara yi te dëkkee Tiwaawan. ñu déplacé wu dem fa. dem nañ fa ba teewal fa groupement daab yëpp yi nga xamante ni mu ngi ci biir ki ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen mm-hmm. teewaay boobu mm-hmm. ñu ngi ko def ci turu Cheikh Tahir Fall waaw ak turu Cheikh Omar Bamba Diop ak mm-hmm. eh, surtout Mansour euh, Mansour Ndiaye ak alkajoor yeeg ñoom Cheikh Niang def nañ daal lu ñu mën ak responsable ya ñu amee foofu te ñu bokk ci modab ña ngay taxaw taxawaay bi lakk gu métti la nag. waaw ah, bu métti kay lakk gu métti la boo xamante ni daal. Mor Kalsi yàlla na ko fa yàlla yemale. may may lancer nag appel ci niñ ko daan defee. Mhm. daan nañ toog ba mu yàgg. ñu ñu comme niñ ko defee ne Touba. Mhm. di waajal màggal gi. maa ngi gis image yi wala boog ci Facebook gis ne euh, alxalifa dafa dajale. Mhm. ñi nga xamante ni ay ndaw lañ. yu tuuti ñii treize ans ñii ah. dix ans. te mokkal alxuraan. def ko ci anam boo xamante ne anam bu yéemee la. defal mm. leen tànt bu rafet. ndeysaan pare climatiser ko. pare nag pour kenn ku mokkal ñaari nit ñoo lay déglu. Mm-hmm. pour bañ nga juum ci masque yeeg yooyu yëpp. ndeysaan jël nag ne xalima boppam ak loxo boppam ne ku ci amee ku ci ku ci mokkal. Mm-hmm. maay bind diplôme bi ma lay jox signé ko. ndeysaan loolu ndam la mu nekk loo xamante ni lu rëy la. xalifa mhm. euh, Cheikhul Khadim. Mhm. jël engagement bu toll noonu dajale leen te du yem rek ci jox leen kayit. diplôme signé ko. Mhm. mais lam cay boole du ko wax kenn. ndeysaan dëgg la. loolu day wane ni tabaarakallaahu. imaam bu ñu tollee bu ñu tollee fii yan ñaan ngeen. moom laay ñoon moom laay ñoon na ko defee noonu. loolu ñaan la waaye tamit danay baax trop. kilifa yi di. dem ci jàkke yeeg dem ci ëttu diine yeeg wéet ak seen borom. Mhm. di ñaan ci réew mi fi mu toll nii fi mu toll nag d'habitude bu nawet daan ñëw oh, yii day faral di xew. Mhm. mag ñi dañ daan toog ba mu yàgg ku ci mel ne Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh. day toog ba mu yàgg ne am na ku gént wala am na ku gis fekk na sax kenn géntul. kenn gisul moom ci boppam la. Mhm. ne def leen dog yi wàcce leen kaamil génne leen sarax. waaw yooyu nag nañ koy faral di. di di dundalaat. Mhm. ngir yàlla mën a aar suñu réew mi. ci accident yeeg yooyu. bokkuma gis na ki nga xamante ni dafay toog naan El lii wala nangam. nangam bi bi bi bi bi jarbaatu xaw ma goro Macky Sall yore transport lii la ko daan wax ak yooyu non non nekkuma foofu. bi may nekk mooy nañ ñaan yàlla mu yem fi. allahumma nag. suñu cheikh waxoon na fi ne jamono jamono ñëw afaar yi dugg nañ biir. Mhm. suñu suñu mbokk sàttige yi danañ faral di génn at mu jot daal waxoon nañu effectivement effectivement fa laa jëmoon sax fa laa doon mujje affaire yi di dugg nañ ci réew mi te lu nekk la ñu capable mhm. loolu nag li koy mën a càng maanaam xaw ma jañ mhm. ba nga xamante ni du taxaw mooy ay ñaan saxoo ñaan mhm. adduaa u silaaxul mu'min wala adduaa u muqul ibaada du noonu bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax loolu daan lay santaane kilifa gu mu mënti doon responsabilité bi nag duñ ko teg rek ci ne président la nañu ñaan nay wax ñu ñaan wala boog mhm. na ko premier ministre santaane bu ko defee baax na mhm. xalifa xalifa généraux yi bu ñu ko defee baax na waaye ñun ci suñu wàllu bopp yi nekk ci gox yi ñuy bàyyi xel ni ni ñu set setal gis euh, ni ñu koy tuddee ci set setal gi ñoree noonu lañu war a amee dajaloo toll juróom-ñaari nit toll soixante-dix personnes mhm. ngir intérêt réew mi ñu ñaan yàlla dàqal ñu yi ngay xamante ni mu ngi xew ci réew na solo te suñ ko defee yàlla fekk si am na solo imam mu nekk lu am solo message bu fort day euh, li nga xam ne moo soxal sénégalais yépp te gis nañ xew-xew yi euh, te comme ni imam ni ko waxee saltige yi amoon na ab ñu ci yëkkati naam sax ñu bari bokk ñu gis-gis ak croyance waaye ñaan euh, dugg ci waxtaan bi bokk na nag li leneen li gën a fës ci actualité actualité semaine bi muy plainte bi nga xam ne Abdoulaye Sylla nekk PDG bu Ecotra daal dina koy porter plainte groupe E-Media di leen toppee li nga xam ne nag moom mooy euh, ay biens sociaux yoo xamante ni dañu ko daal di euh, nasaxal présumé sax ndax dañ leen jox présomption d'innocence waaye mu mel ne nag kii di euh, Alsane Samba Diop ak Mamour Ibra Kane nga xam ne ay directeur lañ foofu ca groupe boobee def nañ réaction Alsane Samba Diop wax na ni ki leen accusé na leen indil yoon bi polémique ndax dans on tweet euh, ci euh, li nga xam ne moo di kontam ci Twitter dafa nag daal di euh, ab def ab post mu ne l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla Ecotra et ses nouveaux maîtres Euh, li tax nag euh, mu indi ab euh, polémique bu ci am ñu bari di ko laajte kan mooy nouveau maître yi ak ñan ñoo nekkoon ancien maître yi waaye mu mel ne nag compte boobu tweet boobu sax dafa tëj commentaire yi ba kenn mënu fa commentaire ñu bari dañ ko doon riposte di ci tontu saa ban jàngat nga ci am ci plainte bi ak évolution bi nga xam ne moom la ci am ndax actuellement dem na dossier ba dem na foofu ca sûreté urbaine depuis le 24 passé. waykat bu mag ba nee na. Hmm. man nag bokk maak imaam mi naan waykatu arab ba nee na ñoom yooyu la ñuy wax. <laughs> waykat <laughs> <laughs> ah. bu mag ba nee na Youssou ah. Ndour bu mag ba nee na ni dañ la tooñ mm-hmm. nga jéem jéem mënul la régler mm-hmm. porter plainte bàyyi koog ñiy at dëgg la bul jéebaane bul def liñ naan porter presse mm-hmm. ah Ablaye Sylla de man moom bon beneen cas la waaye ci cas bii damaa wax ne. koo xam ne dañu ne. dañoo bëgg a def kër liggéey sàngam nga jël sa alal def ca. keneen jël alal mu def ci mooy li ñuy wax kenn mu ay action nga war a toog ab diir xaari dividende gisoo dividende nga jékki-jékki gis ñu ne ci ni mu waxee bu dee dëgg la gëm naa ko ñu ne dafa am benn compte bu ñu teg bu am nangam ak nangam. Mhm. waay waay loolu ci mbirum yoon la jëm loolu kay bu fekkee ne daa dem lu ci ay. ay Ablaye Sylla ak ay nouveau maître ak yooyu <laughs> porte presse lay def mais du jàll. <laughs> waaw wax na ko. da jàpp ne victimisation la. victimisation ah non lu mu doon leneen. Mhm. kat kat ñu ci. Mhm. wax dëgg yàlla am ñii di kii tey dëkk de. bon dëkk ku am lu la naqari ci entreprise wala dara mhm. mais nit ñi duñ dem di yable ay samba sura bare ñuy dem di dóor wala di nangam ak nangam nañ dem ci yoon mhm. yow kay loolu kay bu mbaam duufee neexitan mhm. da ngaa yor lu wér comme ni ko Alassane Samba Diop waxee que di nangam ki koy def yaa indi preuve yaa indi preuve léegi kay loolu jeex na warante xooxaan kay bu ñu yeggee fa ñu yegg xam nañu ñu kenn ku nekk wax li ngay wax teg ci mais boobu daal li Sonko wax rek diversion rejetée joxal joxal El Hadj. kan kan kan moo def diversion. ma ne <laughs> Mamadou mooy def diversion kan mooy def. diversion ma ne joxal El <laughs> pare nga ci. ah Sonko nee na diversion rejeté. rejeté kenn ci wax alors mu ngi noonu euh, Imam xalifa euh, ba tey je pense que ni yaa ngi suivre actualité bi euh, ni ki semaine bi plainte bi ban jàngat nga ci am. ak ak xam nga moom li ci am moom mooy. Mhm. ñu ngi ci réewum yoon. Mhm. ndax man maîtrise kii ma ko sax suivre ma ko. Eh, mais ni nga ko waxee nii leer na naññi. Mhm. mais ñu ci réewum yoon réew moo xamante ne tey ku ñu tooñ. te yaakaar naa boo demee ci yoon dootuñu ci seet. Mhm. ku naan bon jàppale leen ma ci diw. Eh, dimbale leen ma ci tegal leen ma loxo bi ci kudd ma loxo bi ci kii waaw tonce yooyu mais lu wétti woon moom. Mhm. nañu jàpp ne képp koo xamante ni jàdd nga ci yoon danañ la xëccaat teg la ci yoon. sanction lay ñëw nag. préparé ko ci sa bopp. Euh, i rajo la i média waaw mooy i rajo i tv c'est un groupe ah waaw léegi dafa am lu ma lu ma lu ma ciy jànge rek hmm. groupe la boo xamante ni ah man de ni ma gise woon ñu doon opposé métti woon na trop jëmee ci attaqué ay Diomaye attaqué ay Ousmane Sonko nee naa Ousmane Sonko sax hmm. la ma ci jàpp nag mooy tooñ moom du gàllaaj comme que nag tooñ du gàllaaj moom Mhm. yàllaay wone boppam kon kon loolu moo tax ñu bari jàpp ni yëf dafa am dafa am. lu nekk ci suuf ab combat boo xamante ni dañ koy mëne jëmale ci nguur gi naam man de information informations je suis, la première personne bu toog ci plateau. Mhm. wax ni Ablaye Sylla dugal na xaalis biir E-Media ba ñu indil ma ab sommation mhm. interpellative yëfi ñàkk fayda yooyu. Euh, euh, ba ba wax ca la ci am. te le le le, le patron d'Ecotra avait demandé benn conseil d'administration. remonté na et at lu ni mel li koy tudd dafa bari. luñ koy tudd dafa bari xaw nekk na wala nekkul waaye moom. yaakaar naa moom lañ daan wax euh, l'homme de Diamniadio xaw ma. su ma juumul. wala du moom non non keneen ki la Marcel Diagne ngay wax Marcel la. déedéet bokkut ak Marcel. bokkut ak Marcel Diagne xam naa Ablaye Sylla xam naa Marcel. Marcel ñëw na sama kër. Mhm. ñëw na sama kër deux mhm. li may wax daal mooy ni. léegi lan moo tax ñu bëgg a jël dossier bi politiser ko bëgg ko def yëfi politique affaire privée am fi mu ne nii dama laa bëgg a waxal ne la dossier am dossier bu fi jóg bu mu gàtt gàtt gàtt danañ ko féetale fenn. Hmm. koo fi mu ne nii ñu ne bon. dafa àndoon ak Macky Sall démb moo tax ñu koy xeex. Hmm. wala nga laal ko ñu ne dafa ànd ak Jomaay parce que ñoo amee nguur gi. loolu moom mënu fee ñàkk mais li wétti woon moom moom. dossier boobu ñoomu neen la bu ñu demee ci yoon yoon dana leen woon li nga xamante ni moo ciy dëgg ak li ci mhm. dul dëgg am na solo merci beaucoup imam mu nekk lu am solo alors Pape Diop le le le grand journaliste nga xam ne euh, moom dafa bokk ci wàll yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mooy sunu euh, euh, kër yi nga xam ne moo nekk ci wàllu média ñu gis ni crise bi bari na trop jamono ji ab plainte boo xamante ni Abdoulaye Sylla amal na ko jëmale ko ci groupe E-Media pour li nga xam ne moom moo di abus de biens sociaux présumés mu jàpp ni koppar yi ñu jëloon dugal ko amal liggéey ba ca biir E-Media dañu ko daal di détourné dugal ko fenn di ko utiliser seen ay propres moyens euh, du samay wax ay accusation Abdoulaye Sylla la ba tey tamit dañ leen jox li nga xam ne moo di présomption d'innocence mhm. ndax mbir ma mu nga ca euh, justice ban jàngat nga ci am en tant que journaliste waaw loolu day en tant que journaliste moom mbir yi mi ngi mhm. mhm. rek nga ci am loolu <laughs> cee wax parce ñoom ñi dañ jàpp di gars yi benn ko yenn waa kër gu fële <laughs> parce que li ma gën a bàyyi toog que Pape mi da cee lu bari gii nii da cee xam lu nga ci wax parce que. lu lu affaire bi toll fii ñu bari dañ jàpp ni combat la sur combat nag ndax bari dañ jàpp ni génn ga euh, ñi moom groupe booba ci kër kër ga nga nekk ni génn ba dafa xawoon brusque loolu ab defante sax amoon diggante ñaari kër yi euh, ba fu mu toll nii ña fóote ci boor bee moom ñu ngi naan ñaw. non man xamuñ dara yàlla xam <laughs> <laughs> ah maa la bëgg. Pape daal moom maa baax na. après dinañ jox imam alors ban jàngat ngay am ci euh, li nga xam ne moo di plainte bi am euh, jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di euh, Ablaye Sylla jëme ko ci groupe E-Media ba pare réaction bi nga xam ne Mamadou Ibra Kane def na ko jàpp ni daal dafa am ab nouveau maître bu nekk ci ginnaaw Ablaye Sylla ngir xeex ak ñoom. bon man nag. lu aju ci média yi dama am mbetteel. Mhm. parce que dama foogoon ne coowal impôts yi mooy continuer. Mhm. parce que man bu ma déggee ñu wax sax damay foog ne bàyyil nañ ñu impôts yeeg nii lañ koy fay ak mooy coow li mais ndeke ñoom am na yeneen problème yu ñu am yu dul yu dul yu dul impôt. impôt yi non problème de. <laughs> waaw de. problème man li may dégg problème mu dossier may mun a nduur. dañ koo daan fan yi moom tamit. waaw moom moom fu mu toll nii mën na perdre li nga xam ne moom moo di direction bi daal. waaw xam nga mhm. kooku moom defe naa bokkul ak affaire impôt yi. ñii tamit seen coow lii nii bokkul ak yeneen coow ñoom ñoom ñoom presse bi moom dëgg-dëgg xam naa ne. Mhm. nekk ñoom seen problème impôt yi ci gën a tuuti. Mhm. Euh, li ëpp solo rek mooy ñun ñëpp suñu xel day gën a dal. waaw parce que dëkk moom bu amee yoon. maandu te di fa dox rek. Euh, boo demee coon bu ñu la daanee it sa xel day dal. Mm. boo gisee problème yi am yëpp mooy nguur gi fi nekkoon dafa jeng mm. daanul àtte dëgg daanul àtte yoon. moo tax nit ñi sawaru tey léegi. Mm-hmm. nit ñi tey xam nañ ne ku dem ci yoon yoon jox la dëgg. Mm-hmm. parce que lii amoon na fi jamono jamono mag Sall xam nañ ko mais boo demee ci yoon du mujj fenn. parce que journalistes yi nekk foofu noonu ñu si bëri ak ñi moom këru kii yooyu dañu jege nguur. Mm-hmm. soit ñu jege ko ci lu fës wala ci lu nëbb. mais ñu ngi liggéey nguur ci suuf. Euh, bon yàlla nag buur bu baax la parce